président Macky bu mu ñëwee Tamba lépp loo xamante ni waxoon nañ ko ci su waa Tamba ñun gisuñu ci suñu bopp euh, présent Macky bu mu ñëwee ànd nañ tournée fu nekk dans les départements même temps moom su fekkee ni day fàttaliku moom présent Macky ànd nañ fii Makakoli Bantan jamono en 2009 bu ñu dem Makakoli Bantan même temps si bu mu koy attaquer man fa ma fekk ñun jeune membre lay jamono yooyu gisuñu kenn ci leader APR Mame Balla rek lañ gisoon. même élection locale yi bii passé Mame Balla dafa gagné départemental Sall gagné commune mais ñun localité Tamba tey mairie Tamba nu mu demee ba Mame Balla jot yi ñun xam nañ ci dara te waa Tamba xam nañ ci dara suñu leader Mame Balla Lo mu jox ko gëddëm jox ko akam ci APR. moo xam ne ne tamit Mame Balla tey c'est un député maire Mame Balla mënul jàppale kenn su dul ci localam bu mu yor mairie Tamba bi mu yor moo taxoon tey ñu ñëwoon fii président Macky dégguñu mu bëggoon mu recevoir ñu ñun jeunesse Mame Balla Lo